alors Assane Ba euh, c'est une nouvelle page qui qui qui, qui s'ouvre un nouveau tournant. Euh, Maïmouna <coughs> yaakaar naa ni tey euh, vous avez lâché le mot wax nga délivrance c'est une délivrance le président Macky Sall mënul woon def leneen lu dul wax askan wi ni du bokk ci élection 2024 pour deux raisons benn bi sàmmoontewu na ak sartu réew mi. ndeyu sax mi constitution constitution moo féete kaw ñëpp y compris le président constitution boobu moo wax nii kenn mënatul def ñaari mandat yu takk toppalante ci réew mi kon ñoo ngi koy gërëm di ko sant ci lool sàmmonte na ak askan wi sàmmonte na également ak charte réew mi gën a koy ñaareel bi d'accord ak ñi nga xamante ni dañuy wax ni mënoon na nekk waaye moo renoncé renoncé wul daf ko mënul a nekk nañu waxante dëgg mu mu leer mais li am solo mooy tey askan wi ci boppam ñu bëgg réew mi am jàmm ñu bëgg réew mi dal parce que mënuñu à chaque fois ñu jege élection présidentielle ay ay bakkan di ci rot en 2011 c'était pratiquement je crois 14 wala 11 mu juumale ñuy jëpp 2024 lu ëpp déjà 20 25 25 à 30 personnes gaañu nañ ci loolu askan yëpp taxaw nous étions nous sommes dans la hantise mais tey jii délivrance la parce que tey askan wi xam naa ne ku génnoon tey nga micro nga def micro trottoir askan wi dina am ñoo xam ne sax dinañu fecc ndax loolu. kon nag véritablement li mu def tey moom war a def léegi nag dans l'histoire politique du Sénégal il sera le premier président sortant à organiser des élections c'est important foofu li ñu soxla foofu mooy mu fexe ba mun am une participation inclusive ñi war a bokk élection yi nañ bokk élection benn ñaareel ba li nga xamante ni moo jëm ci jumtukaayu élection yi sa dëgg dëgg dëgg ñu doxal ko nu mu war a doxee balay yàgg dinañu procéder à la distribution des cartes d'électeurs gis nañu ñëpp désorganisation bi nga xam ne administration bi daf ko doon def waa carte Fongolembi mi dañ leen doon fekk Fuuta carte Fuuta ñu yóbbu leen Ziguinchor gaa ñu toog ba élection duñu jot seen ay carte j'espère que cette fois-ci la direction générale des élections sous la tutelle du ministère en charge des de l'organisation des élections donc dinañ ñëw sur le loolu. Ah. loolu loolu tam c'est important parce que élection loolu moo tax.